la bi fekk na bàyyi koo ba tey Cheikh Moustapha Fall na la junni nit ak juróomi téeméeri ñoo ko doon gas Cheikh Ibra la joxe juróom-ñaar téeméeri loolu major ci moom laa ko dégg ñu gas raay bi ba mu àgg liggéeyu jumaay Touba jumaay Njaaréem korog bi Cheikh Ibra Fall di joxe gaalu xaalis ga sëñ Moussa Ñang yanoo ko Thiès am ànd ak sëñ Massamba Ndiaye wàq ñu ñëw gaalu xaalis googu sëñ Modou Xëyri Jaxate la dégg ci làmmiñam muy lim ña joxe ak lañ joxe waye bam mu ci Cheikh Rafal daf na galu xaalis gu fees dal la mënu mat sallallahu taala alayhi wa sallam bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani nawir janani safi amani wazid bara'i barki mam Cheikh ibrahim Fall alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki telespectateur yi mbokki auditeur yi mbokki jullit yi mbokki talibey yi amaat mbégte dellu si waat si jotaayu ku maam Cheikh Ibrahima Fall bi di Jazboul murit ngeen koy am talaata yi ñu koy delloo si àjjuma ci guddi di leen ziar bu baax a baax a baax a baax di tàmbalee si ziar bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké eh, mi Serigne Touba Khadim Rasoul sunu borom yàggal ko fi loolu te mu wér waaye di ziar bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall sunu boroom yàggal ko fi loolu te mu ànd waaye di eh, nuy ak ziar eh, sunu sang ba Serigne Cheikh Ngounda Fall. Dukonya ñaanal mu yagg fi loolu tan wër di ziar mbollem jabotuk Serigne Touba gi ak njabootuk mam Cheikh Ibrahima Fall gi mbokk yi di am bekté nak tay delu ci ci uh, jotay bi and uh, sunu jëwriñ Serigne mamou Ndaw Baye Fall mi nga xamanteni uh, ñu ngi ñaan sunu borom dolli ko katanal dolli ka wëreul dolli gi ci pas-pasam gi nga xamanteni amna ko si mam Cheikh Ibrahima Fall. te lafal ko cat ba lepp lu mu bëgg agalé suñu sunu borom defal ko ko barki mam Cheikh Ibrahima Fall. xam ngeen ni programme yi tegaloo na lool. waaw Kajoor gaa ngi nii fi mu ne nii eh, di waaj poroxaan. Mhm. waaye it eh, di waaj waaj waaj yeneen yi si des yëpp rek kon. Mhm. di ñaan suñu borom eh, rof la kattan gi barke Baye Cheikh Ndaw ba lépp jàppandi waaw di la ziar bu baax a baax na kon tey ñu ñëw si ak mbokki jullit mbokki taalibe yi fas yéene saafonteeg ñoom. Mhm. nuyoonteeg ñoom. ndax saa su ne ñu ñuy diis. ligne bi maanaam téléphone bi lu tax euh, daanaka. Mhm. muy xaw di jafe. Mhm. kon baax na ci léeg-léeg. ñu jokkoo seeg ñoom bu ko defee ñu daal di ñuy rek xam naa ni. Mhm. ku si nekk barkeelu lenn si maam Cheikh Ibrahima Fall. lu si am lu si lu si am solo lay doon. waaye it euh, jotaay bi barkeelu si. pas-pas bi nga xamante ni sunu sëriñ ba sëriñ Abdul Karim Mbakke. borom makaarimul axlaaq am na ko lool mm, waaw moom moom Cheikh Mouhamadou Fadel Mbakke. Mm. moom maam Cheikh Ibrahima Fall. kon di ko ziar bu baax a baax moom ndax xam ngeen ni jamono jëlee la wootee. liggéey bu am solo di liggéey tubaab Bogo te yoonu murit moom liggéey la xidma mm-hmm. uh, mu uh, sëñ Abdou Karim ak pas-pas bi incha allah sëñ Maamu dinañ si ñëw bu baax a baax si kaddu yoo xamante ni ku ko dégg rek dina gën a yokkaat sa pas-pas. waaye dinañ si ànd ak kàddu barkeelu Serigne Cheikh Ngounda Fall mi nga xamante ni moom it pas-pasam si maam Cheikh Ibrahima Fall. foo ko natt rek weesu na ko. kàddu yoo xamante ni soo ko déggee rek ñun ñëpp dina yokkaat suñuy pas-pas. sëñ maamu kon noonu lañ fas yéene tëralee jotaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Alioune Badara Ndim.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 waaye di ziar baax Serigne Cheikh Jëmm Fall di ñaan suñu borom doole ko fa yàggal bu baax a baax tamay ko wér. Mhm. di ziar mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ziar mboolem Cheikh yëpp. Eh, di ñaan ci barke Serigne Touba jotaay bi li ñu ciy topp yàlla na ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye ni nga ko waxee rek di ziar bu baax beral ziar ak ñaan Serigne Abdou Karim Mbakke moom Serigne Mouhamadou lu Mbakke. waaye sëñ Abdou Karim Mbakke moom maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall te di ko mm-hmm. dund eh, te saa bu waxee rek mu feeñ ci kàddoom waaye pas-pas beeg lépp itam boo ko gisee rek jëmmi Cheikh Ibrahima la lépp rek ngir eh, saa su ne rek muy gën a soññee mm-hmm. wane na yoon wi eh, Cheikh Ibrahima la li mu mm-hmm. jàngale mooy yoon wi te kat waxoon naa la na la aw yoon bañ koy sàkk dox caa taxawaay toog taxul nee na ku toog bokkoo Cheikh ne ku toog ci yoon bu ñu la rombee sëñ bi jugal yoon ñu jaar rek lañ lay wax te kenn waxu dëkku murid yoonu murid lañ wax euh, di ñaan bu baax a baax sëñ Abdou Karim mu yàgg fi tànd ko weer mboolem njaboot gi yëpp di bu baax soxna May waye sunu wayjur bu baax wa sunu mam soxna ma wa fay mom mhm. eh, tam di wayjuram di ko ziar bu baax baax sunu borom dolli ko fa yagg bu baax baax te eh, di ziar bu baax a baax Serigne Cheikh Ngunda Fall mom mhm. jamono bi mi ngi xel kom mi ngi mi ngi mhm. eh, wala barki démb ci guddi rek la tak ngir dem poroxaan ak mbolam jabot gi yep di ziar bu baax te diko ñaanal waye di ñaanal bu baax a baax itam dolle ziar ak Serigne Cheikh jëm yagg fi ndax mom xam nga ne ren waaj na ngir dem poroxaan incha mhm. allah bu ci yàlla àndee. Eh, suba defe naa mooy doon départ bi waaye loolu itam signal yin badara lu rëy la eh, lu loo xam ne mbokki taalib yëpp bëgg nañ ci wax dëgg kii kilifa yëpp bëgg ci waaw loolu rek di ñaan sa boroom mu def dem ci jàmm dikk ci jàmm mhm. ñaan sa borom yokk xéwal yi ak kàttan bi bu baax a baax waaye di beral nuyoo ak ziar nag sëriñ Muntaxa Mbàkke bu borom pas-pas bi ma ko gisee Mbàkke Kajoor Koroog sama yaram dafa daw waaw moom daal ndekete day wone yoon wi rek waaw ndax xam nga ne jamono yi fi mu toll ak wàccaayu poroxaan mhm. waaye nag ñoom la ma la wax rek saa sun dañuy wane naka la mhm. waaw doot ñu Cheikh Ibra ne woon na maa maa na ba ñëpp xam na nii la <laughs> waaw loolu nag saa su ne moom mooy mooy mooy doxinu ñu mboolem njaboot ak Serigne Touba gi mhm. di ñaan san borom doolu leen fa yàgg bu baax comme ni nga ko waxee nag tey mu fas yéene dellusiwaat saafonte ak mbokki taalibe yi xam nga ne biir réew mi ak bitim réew mhm. eh, ñëpp a ngi topp Jazbul Murid mu Murid eh, soo xoolee da ngay defee ne Sénégal rek koy topp mhm. waaye tey eh, ñi koy topp ci bitim réew ñoo ëpp defe naa ne sax koy topp ci bitim réew mhm. ñoo ñu koy bàyyi xel fii ci biir réew mi lépp rek di wane nekkoon ki ñuy jàngale ki ñuy wane bokk ndax Cheikh dañ koy jàngal ba pare jàngale ko kon jëmm jooju muy maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. moom mooy ki nga xam ne képp kuy am kuy roy ci sëñ Touba dara. wala ngay sàkku ci sëriñ bi buntam ci buntam ngay jaar. maam Cheikh Ibrahima wane bunt bi sëñ Touba nee na ko nee na woon Ibrahima Fall fu mu bët yàtt leen ko ab bunt ndax fu mu jaar aw yoon la. loolu nag mooy yoon wi nga xam ne biir réew mi ak bitim réew sëñ Aline Badara. Mhm. da ngay gis ñoo xam ne sax dañuy dajee wala ñu woola na la gannaaw yàlla yonente bi ci jësbul murit laa xamee maam Cheikh Ibrahima Fall lépp rek ngir jësbul murit ni muy toppee njabootu Cheikh Ibrahima gi wala damaa bëgg a jébbalu doon Baye Fall ma a jébbalu doon Baye Fall ndax du seen jotaay yi moo sabab mu bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall ba bëgg a jébbalu li ko sabab nag moom mooy jësbul murit daa ñëwul rek toog mhm. yam ci di di toog noonu rek di wax dafa dafa dafa dafa jóg da mhm. Cheikh Ibrahima waxoon dafa jóg solowu dàllam mhm. fépp fu ñuy tudd Cheikh Ibra moo moo xam la ko tàmbale ci Sëñ Fallu Fall laay tàmbalee mii taawu Cheikh Ibra ba ci Ngunda saa biige mi nga xam ne moom mooy caatum Cheikh Ibra jës bul murit dafa maasale buntu kër Cheikh Ibra Fall yi boo xoolee itam la ko tàmbale ñu njëkk a jébbaloo ci Cheikh Ibra ca Gànjool xam nga Cheikh Ibra bi ko sëriñ bi yeewee rek daa daa daa aw yoonu ndar mhm. ña ko njëkk jox seen bopp koo dégg ñu tudd ca mag maanaam ci mag ñi diko tudde tuddee ndar ak gànjoo rek ca magni la bok la ko tambale ci Cheikh Atoumane Diop ñom ñëw ba ci ay seigne Modou gay Maroc ba ci seigne Ndiaye Baye mm-hmm. wacc ba ci mbolam ñako topon fofa ba ba ci ñi nga xamne bi fi Cheikh ibrahim djougué mm-hmm. di wax diw ak diw ak diw am nañ ngërëmal yàlla Moustapha dana len nga xam ñoo nga bi Cheikh ibrahim dem buñ ci daara ji ñepp la jës bul murit bolé ngir di len di len di gëstu seen i jaar-jaar di gëstu seen i njaboot. Mhm. waaye tamit yemut foofu dem ci ñi nga xam ne nag dañuy suñuy kilifa. Mhm. waaw nga xam ne ci yoonu murit tey ñoom la ñuy roy ñoom lañ yaakaar. ñu wëlbatikuwaat fekki leen nag ngir ñu yokkaat sunu pas-pas ñun yokkaat sunu pas-pas ci maam Cheikh Ibrahima Fall ki ci jiitu monsieur Abdou Karim Mbacké monsieur Fallou xam na lu ñàkk ci kanam tuuti incha allah danañ ci ànd ak mbokki taalibe yi mhm. ngir liggéey waxtaan wu am solo yi nga xam def na ko bogo mhm. Touba bogo ci liggéey ba mhm. eh, lépp rek di yeewi mbooloo mi wane ne eh, ak ab taalibe daa war a am nu mu mel ab taalibe daa war a daa war tegu ci aw yoon eh, loolu dañ lay delluwaat kàddu gi rek sëñ Mamour foofu da ngay ñëwaat léegi sax waaye sama yaram dafa daw keroog Eh, ci Mbacke kadior mhm. bir keur Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mhm. di ñaanu mu yagg fi lol tan ak wër. Mhm. di di di ziar njabotuk eh, Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gep rek. Eh, ñi fi nek seigne Basirou Baara. suñu borom yagal ko fi lol tan te mu ànd wër. seenu pas-pas xam nga keroog bisu Mbacke magul Mbacke kadior gi bir keur Cheikh Sidi Mokhtar. bagn fa dajeeg Serigne Thierno Diaw. waaw moom sëñ Diaw Paxa. moom serigne Diaw ni sunu sama mbokk Baye Fall yaa ngoog. <laughs> ndeysaan mu don di yewé ni ni Baye Fall na ma yena Baye Baye Fall laa di yéen <laughs> ndax gis nga loolu sëñ Mamour dafay dafay dafay yokk pas-pas mm-hmm. mu may fàttali sëñ Fallu Chouaïbou mm-hmm. ndeysaan nit saa suñu gisee mm-hmm. maanaam uh, sa sa sa sama Baye Fall yaa ngi ko ak kilifa yu bëri sëñ ba Baara moom fay ñu kaa wax ndax moom si si si ñëw dana si moom moom moom nee na moom fu ma ne ngeen fekk ma waaye maa ngi bokk pas-pas ndeysaan mu ngoog mu <laughs> kon Mbacke Kajoor mm. ñu ngi uh, ñaana laat bu baax Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mi euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mhm. mi toog jotaay Serigne Touba suñu borom yàggal ko fi loolu tamande wér njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp mhm. Serigne Bassirou Bara mhm. Serigne Abdou Aziz Abou maanaam mbo kuy njabootu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Bara euh, sëñ Cheikh Thioro mi nga xamante ni bari ki jóge fii Lam Fall si visite bu am solo bi nga xamante ni def na ko fi waaye nag beral nuyoo ak ziar jàmbaar maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Babacar Mbow Eh, eh. mi nga xamante ni ku dem euh, bu ziar ba mm-hmm. ku dem si projet bu rëy bi nga xamante ni mm-hmm. euh, Cheikh Sidi Mokhtar jox na ko Serigne Cheikh Jëmbo mu mm-hmm. teg ko si loxoom ni mu koy liggéeyee xamal ni kii kat euh, ku ku kuy dox la te kuy dem la macha allah yàlla na ko sunu borom mottalil mu àggaleeg jàmm ndax nag gis nga kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi dinañ si ñëw sax ak mbokk yi incha allah si liñ leen jëlalee Mbàkke Kajoor si jotaay yii di ñëw kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi lépp taxaw na rasé na ak ay bâtiment am ci biir ndax nag lu yaatu la loo xam ne am na juróom-ñaari appartement ci biir ay bâtiment secondaire ci biir mm. waaye di gis nga ni bara bu fi ñuy jaare fi maam Cheikh Ibrahima Fall sukkoon gëtu yoom yooyu sëñ Mamour di di joxe boppam ndeysaan fi mu ne nii tey tàmbali na ko ba pare li gën a yéeme foofu mu beral ko loo xay ni nee na dañ koy sol foofu la lépp sottee fa la lépp sottee sëñ ah. Mamour di nga si ñëw léegi nga xamante ne dañ koy sol euh, maanaam coulage lay doon hmm. du am benn brique te fi mu ne nii liggéey baa ngi dem bu baax a baax kon daal mbiri Mbàkke Kajoor ñu ngi ñaan sunu borom fekke koy ati ati ati at fa surtout fa la nga xamante ni fa la lépp xewee mm. xam naa ne ñaan nañ fekk dëwoon bu ñu fay ñëwaat mm. fekk foofu moom mbokk yëpp ñëw fa di ziar nga xamante ni liggéey bi luy mat lay doon sëñ Mamour laataa ñëw si élément yi Mbàkke Kajoor warkal euh, di di dollee ziar comme ni nga ko waxee rek sëñ Babacar Mbow xam moom day jàmbaar ndax euh, Cheikh Cheikh sëñ Cheikh jëmm daf ko daf ko jox liggéey bi rek mu tuxu mu gàddaay Eh, lool moom nag dund nu mag ñi lay dund sëñ Ibrahima Gueye wax na ma ko léegi nee na ma sëñ Babacar mag ñi lay roy waaye nag mooy ndax gàddaay mag ñi dañ ko daan def maanaam ñu yabal leen joxañ leen fenn rek ñu gàddaay ndax keroog bi maa ngi bàyyi xel sëñ am sëñ sëñ am di ñang yàlla na ko fi sa borom yàggal waaw keroog ba Seex Ibra ne bàyyi ma fàll dama bëgg ren nga dem ci àll ba liggéey waaw waaw foofee ma leen yabal nag muy daal di gébb la waxoon de mm-hmm. am murit du fa dëkk rek mu daal di tiit xam nga rek mag ñi mu ne ko waaw ndax ku fa dëkk ru weesu nga murid la ilaha illallah <laughs> waaw dégg nga cheikh ibra de waaw ni nijaay ma faal dégg naa di yuuxu korok di bu ndax li ko cheikh ibra wax di yuuxu rek ne moom lu mu mën a doon ci àll balaay fanaan yi cheikh dafa génn naa ne mu fall xanaa kooku moom ak moom ñu ko ah, waaw mu fall mu ngay bëmb rek nee na mu ne ah ma faal xamoon naan su déggee sama kaddu dootu nekk nit waaye loolu moo dal sëñ babacar mbaw maanaam su la sa sëriñ joxeñee rek mhm. mooy amutoo amutut naa table léegi mhm. fa mu ne foofa rek foofa la moo tax ba sëñ Cheikh jëmm joxañee Mbàkke Kajoor mooy liggéey bi nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko fi yàlla yàggal teg na ko ci loxoom eh, mu jël ko dénkaat ko sëñ Babacar Mbow mhm. mu daal mu daal di mu daal di mu daal di meebu nag mhm. ndakaaru almadi gi këram fépp ak ndéem meewu dem dem sanc ji Mbàkke Kajoor te du fa jóge ba liggéey bi àgg sëñ Mamour li gën a yéem li mu fa mhm. sancee jël ñi nga xamante ne xëy na mm-hmm. ñu ñu ñu weex tàll lañ mm-hmm. di suñuy mbokki euh, Baay Faal def na leen i Baay Faal mm-hmm. di ay étranger lañ leen mën a tuddee ay euh, ay tubaab fees fa del ñoom ñëpp ànd ak moom liggéey bi nag mission bu doy waar waaw loolu lay wane ne xol yi ñoo nangul sëñ Tuubaa waaw nga xam nga xam nga xel moom man nay xalaat nii rek di dem waaye gis nga xol moom bu gisee dëgg rek man li ma yéem kenn gënu leen fa jàmbaar rek waaw waaw ku leen fekk si waar bi kenn gënu leen sëñ Tuubaa boppam rek waaw sëñ Tuubaa ci wane boppam lam leen waxoon na leen <laughs> eh, xam nga loolu moom comme que bitim réew lañ lañ dem di marché ci kaw tali yi di woote yoonu murit foofu te sëñ bi waxoon na leen danaa leen fekk siwaat bu fii wane leen na leen yàlla rek fi ak yonent bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu kon day wane ne sëñ tubaa ko l'islam boo ayee sa loxo lay tege te sëñ léegi nag loola loola loolu la sëñ Babacar di firndeel loolu moo nekk nii loolu Cheikh la la ndax naka jekk dana mat ñëpp teg loolu ci loxol sëñ tubaa te loolu firnde li mooy leen Mbàkke Kajoor boo fa ñëwee ba gis ñooñu ngay wax ak pas-pas bi ñu àndal. ngay xam ni lii du lii du neen yàlla la. loolu la gars yi doon wax ndax bu doon neen du sori. du sori waaw xam loolu wax la boo xam ne nit ñi dégguñu ko. Ah, du neen yàlla neen du sori. du sori hmm. waaw. loolu loolu mag ñi daan sikkar naan eh, yaa mu dooy dafa tiis falal góor ñi ñuy. ñi ñuy fal <laughs> yàlla nañu fal ñu ñuy fal barke maam Jaara Fall waaw sëñ. Hmm, hmm, ok xam nga loolu day day wane ne kon. Eh, loolu rek la. Cheikh Ibrahima moom la kenn xamul lu mu doon. moo tax saa waaye nag yoon wi moo baaxul liggéey saa su ne ndax est-ce que euh, sëñ Alioune Badara du ma deñ di ko wax. yoon wi hmm. liggéey moo fi ne. sëñ Mamour liggéey fi ne. ci hmm. lii ñuy waaj a ànd ak mbokk yi. Hmm. da koy wane bu baax a baax. jàmbar ja ni ko waxee sànq Serigne Abdoul Karim Mbacke borom Makarimul Akhlaq. Euh, tool yi Touba Bogo yi. mu ko wootee nga xamante ni yoonu yoonu xidma la. liñ naan kenn du wax ba fii de kenn du fi waxee ba raw waaye des fi jafe ba raw wax mayewu <laughs> fi dara hmm. <laughs> di fàttali na ma kàddu gu kàddu gu am solo bu sëñ sëñ fàllum sëñ Modou Amin te waxoon hmm. euh, pour pour pour ngir wane ni rek fii waaye loolu moom dinañ si dikkaat insha allah kon ñu ànd képp dañ koy wax mu leer moo ko wax kay kéemaan la pour wane ni fii moom jëf rek yoon wi yoonu jëf la hmm. te ñoom wan nañ ñu wan nañ ñu yoon wi hmm. ñu ñuy jëfee saa ne am na lu sa bàyyi sax ndaw tegoon de xam naa ah, moom xam naa ne yow yaay yaay yaay yaay bàyyi sax ndaw góor moom moom boo ko waxee moom yaa ko war a wax eh, alhamdulilah ndax yàlla nu nu ànd ak kon eh, Serigne Abdoul Karim Mbacké borom makaarimu axlaaq hmm. barkeelu si kaddu yi am solo yi nga xamante ne yëkkati na ko eh, si jamono si toolu Touba Bogo yi gannaaw ba mu ko wootee mbokki taalibe yëpp nag wuy si ko wane ni yoon wi yoonu jëf kepp la ñu ànd ko arrangé xam ne. sëñ moo du Fall. sëñ Modou Moustapha Fall. mais mi njëkk a doon xalifa Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall. njëkk a doon xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. moom sëñ Cheikh Fall Baye Góor moomu. moom moomu de di. di Cheikh Fall Góor. moo moo doon. moo kon kooku kenn gënu ko doon Baye Fall. kenn kenn mënut a doon gën a doon kooku Baye ma di la nettali nag ci alxuraan. ma leen di wax nag kooku alxuraanam ni mu demee woon. bu gaawaayu mbindam. gaawaayu mbindam bu ma saa bind nee naa la bopp ba bind ba féete kaw day day day tooy. nee gaawaayu mbindam yeggoon na ci bu daan bind aw xët mbindam ma féete kaw day tooy. aw bind wu féete kaw kay bu tooyee. aw bind wu féete kaw kañ bu tooyee. Eh, ku ne xam na ne yee su yee ko féete suuf. yee ko féete suuf xam nga ne tooy nañu. kon xët wépp tooy. kon xët wépp ay tooy. da da ko naan jël xët wi jox ko benn xale. su ko defee day jël benn xale jox ko xët wi. mu dem taxaw ca naajo. ne ko demal taxaw ca naajo. ñaari dal la daan dal. ñaari dal lay da daan dal eh, eh, baqara. day dal baqara. dal mareem dal bu la joxee bu bindee bi mu jeex mu jox nga dem taxaw ci naaj wa bu la joxee bu joxee gone aw xët mu dem taxaw ca naaj ba te xët wa bokk ci baqar gi mu mu mu jël sóortu Mariam mu jël ci Mariam weneen xët Mariama di bind kee nekk ca naaj wa di woowal sóoratu Mariama alayhi salaam tisun wa tisuna ayatan makkiyatan waaw waaw mooy téere suuf téere suuf boobu la lay tàmbalee bu ko defee mu mu mu jox la nga nga nga nga nga dem taxaw nga dem di ko woowal nga dem taxaw di woowal mu demaat bàqara dem bàqara waaw surtout Bakharati mais étaani xam suñu xam suñu. daal lay doxaat yow. daal di bi daal di ñuy biwaat ba euh, euh, Mariama. waaw rek moom fu mu àgg rek jël fi ñu nga xam ne du taxaw moom li mu doon moñ mooy taxaw. automatique. te mu tooy mu mu muy nekk mu wo ndax aw xët bu tooyee boo ko bëgg albatee moom mu yàqu faaw nga nekk ko mu wow nga soog ko mën a. nga xam ko da nga xam ni nii bindee. waaw. noonu sëñ Cheikh bi nu mu yëpp laat alxuraan ba tey. mu nekk yow ba sëñ Cheikh Fall noonu la meloon. waaye léegi daal mooy daal yéen yëpp daal teg naa leen ci loxo sëñ Fallou. yéen daal li lii ngeen di liggéeyal sëñ Fallou ci Touba Bogo. te lii ngeen di liggéeyal sëñ Fallou ci Touba Bogo. yàlla ngeen ngeen gudd fan. waaye ku ku fi yàgg. day gudd fan googu ma leen di ñaanal da ngeen da nga da gis lii. ku fi yàgg di nga lii moom nit du dem mukk mukk mukk ba ba ba màggat ba jóge fi. te gisoo résultat bi am. lii ngeen ci seen liggéeyu Touba Bogo. googu googu mu gannaaw gannaaw loolu nag mu ne nag ginnaaw loolu su ngeen delloo bu ngeen delloo ngeen dolli ngeen dolli seen baatu tubaab sax laa koy waxe ngeen dolli nag seen personnalité ngeen dolli nag seen personnalité personnalité mooy personnalité day mooy mooy am mana rek am mana rek moo ko doon firi boo doon firi personnalité daal ah. da nga naa ko am mana rek mana moy. maanaam daal mooy. loo xam ne day amuk dal. ku ku amuk dal. yiw. nit ku yiw. bu waxee mu rafet. di wax wax ju rafet. di jëf jëf ju rafet. di jëf jëf ju rafet. sa diggante. sa diggante. ak bindeef yëpp ak bindeef yëpp. rawatina nag. rawatina nag. jamono boo xam ne. jamono joo xam ne. ku ne day wax rek. jamono ji wax ji bari na ku ne ngi wax. te. te. ku ci ne la muy wax. benn ku ci ne la muy wax. daanaka. daanaka. boo ko ne woon waat de bi dañoo bëgg li ngay wax. dana la am nañ indil la fii ab kaamil bi nga jàpp set waat ko. <laughs> xalaat dana am nañ xalaat. kenn ñemewu cee waat li muy wax. waaw kenn ñemewu. waaye sëñ bi gis nga mës mës ngaa gis lu mel noonu. waaw seetal ma nii nag. ñëpp di wax te kenn ñemewu ko waat. kenn ñemewutu waat li muy wax. kenn ñemewuta waat li muy wax. mu la cee da ngay arrière rek amandi foogoon naa ne. ah moo ne man gis nañ bi yoxu day tolluwul foofu nag. waat. yooyu. bu ma sañoon képp koo xam ne. bu ma sañoon day man sëñ Abdul Karim képp koo xam ne da ngay sosi fi man. yàlla boole nu yàlla boole yow. doo bokk ci ñooñu. man de bu ma sañoon doo bokk ci ñooñu. nga ngeen fonk seen kilifa yi itam. seen kilifa yi waay. seen ndey ak seen yi ak baay ak dëkkandoo yi ak dëkkandoo ya. ak yéen ñi ngi tolloo. ak ñi ngeen tollool. ngeen fonkante yéen. fonkante leen. civilisé leen. silwise leen bu leen bok ci badoli yi bu leen bokk ci badoli badoli badoli moy mooy ñuy tapaleek kat yi la di gañ nit ñi di gañé di wax luñ xamut ak di wax luñ xamul lu ñak yuuxu ba ñepp dégg ko bu ñaké di yuux woy ba ñepp dégg ko di sos ak di ak tapaleek tapale bu leen bokk ci ñoy yéen de bu leen ci bok nit ñi nit ñi gis na ci ñaari nit ñaari ñaari nit nit ñi de man gis naa ci ñaari nit. gis naa ci ñoo xam ne. gis naa ci ñoo xam ne. ñu ngi ak ñu ngi ak milliards. wala ay milliards. wala ay milliards. waaye boo boo yendu woon ci ñoom. boo yendu woon ci ñoom. balaa weer rek. balaa weer nga doyal ci ñoom nga doyal. ndax di koy ñaaw. ndax di koy ñaaw. li ñuy bari le bari la doole dootoo leen doy dara li ñuy bari le bari le dootoo leen doy dara ñu yendu ji kër diw. ñuy gonflé ka. di gonflé rek. funkee ka. funkee. def yu ñàkk fayda yoo xam ne. ay façon yooyu daal. lam yor da mujj sax ne kii daal moom. da nga koy booleeg lam yor rek regg ko rek. moo soof rek kii daal moo soof. gis koo xam ne. gis naa it façon boo xam ne. koo dara. yorut dara. waaye boo yendoo woon ak moom. waaye boo ngeen yend woon tey jii benn bis. ba muy ay fan yu. ba yu néew. dootoo doyal ci moom dootoo ndax ay meloom. ndax meloom yu rafet. xel ma. xel ma. ngor ngor ga. dal ga ñàkk ga du tax mu. ñàkk ga tax mu jàmbat du ñànki. du du ñànki du wax dara. du wax dara. am na am na de. nañ bokk ci ñooñu. nañ bokk ci ñooñu. boo yoree si lëf nag ba noppi mel noonu. boo yoree si lëf nag pare mel ni ñaareel bi ma wax. ajjana ngay doon rek. lan <laughs> ñaan nag ñu bokk ci ñooñu. lan ñaan rek bokk ci ñooñu. mooy borom jikko yi rafet yi borom jikko yi rafet yi. makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq ba pare yor dara nag. yàlla ci yàlla boole. yàlla nu ci amiin jëlal waxal amiin waaw sëñ sëñ sëñ Mamour ñu ngi ñaanalaat bu baax a baax sunu sang bu tedd bi sëriñ Abdul Karim Mbakke borom makaarimul axlaaq moom sëriñ Fallu eh, sunu borom gën ko fay yàggal lool te man ak wér dégg nga li wax nañ yor yooyu jikko di jukko yi borom makaarimul axlaaq gën gaa tedd yi jukko eh, sëñ Abdul Karim fi mu ne yéeme na hmm, maanaam fi fi fi fi maamam newoon fi waajuram wu tedd wa newoon mhm. fu maam Cheikh Ibrahima Fall newoon mhm. foofu rek la teg tànkam mhm. saa su ne moom mbégte la suñun saa suñu ko gisee day def suñun mbégte ndax pas-pasam ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye pas-pasam ci yoon wi sëñ Mamour tubarkalla xam nga sëñ Alioune Badara eh, moom lii li lii muy wax nii loolu lay dund boo ko fekkee fi mu nekk ndax xam nga li gën a doy kéemtaan mooy xëy suba toog ba jant bi sox dalal ay gan rek tey it seen ku nekk ak li lay indi. ku nekk ak li lay indi mu defal la ko ni nga ko bëggee ko na nga ko ndax ñii dañuy ñëw ñaandu ba pare tamit di laaj. Mm-hmm. am waaye day xëy di di joxe ba jant bi sox. loolu rek beneen biir la bi ci des itam mooy. seere naa ci Cheikh Ibrahima li ma gën a yéem ci jëmm ji mooy. Mm. Eh, la fay teew ci mbooloo mu leen di berndeel. wóor na ma ne lu ñuy xëy nit ñi di ko indi ba jant bi sox. dana ko defaat ci biir ci biir doomu aadama yi te bokkut ak ñi nga xam ni nag kenn ku ci nekk am na lu mu warloog yow kon li muy jikko yi muy wax mooy jikko yi nga xamante ni bi moom la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim maam jagleel mhm. eh, ndax mooy xol bu sel te set mhm. ba pare itam te bëggut ndax xam nga di nit ñi eh, doomu aadama yi xam nga niñ mel kenn ku nekk ak la ngay mhm. indaale maanaam ñaanal nii ñu war a yeewiku ñeneen ñëwaat ñeneen war a yeewiku ñeneen ñëwaat waaye ko ko koo ñaanal sax mu war a yeewiku sax day toogaat mm-hmm. te yow doo sañ a jóg sax dugg ci biir bàyyi ko maanaam dafa korog dama mujj sax yéemu ndax dama dem ba xam ne siñ bi nangootul sax na mënatu mënatu mënuta sax bàyyi gan yi ci biti te it bëgg na di saafoonteeg ñoom ba kenn ku ne nga dem ci sa sago loolu rek loolu yooyu yëpp day ay jikko yu tedd yoo dalal seen xel dalal seen xel ndax soo gisee euh, sëñ Mamour li lay gën a te nit ñi rek yaakaar rek la ñu am yaakaar rek la ñu am te buñ gisee buñ la gisee eh, yaakaar la rek suñ euh, su suñ borom mën naa leen defal tawféex mm-hmm. ci lañ lañ bëgg ak lañ yaakaar euh, sans borom jàppandi ko moo tax ku gis moom ji waxuma la nga jox ko loxo waaye boo jàkkaarloog jëmmam rek. Mhm. suñu borom mën naa def ci yow tawféex bi la nga doon sàkku nga am ko. dëgg la loolu am nañ ci firnde bu wér a li gën a yéeme mooy. Mhm. nit ki ñëw ak jàngoroom. Mhm. lool. sëñ bi ni mu koy dalalee rek. li mu koy dalalee rek faj na ko wër na. Euh, te it leneen li si gën a yéeme mooy. ku nekk ay ñëw ci moom. di ñu ñuy tuddee borom ndombal tànk. di ñuy wut tuddee borom daraja si. am-am ci alal. Mm-hmm. de ñi ñuy tuddé borom tombu, mm-hmm. borom borom borom borom barke wala ñu ko mën tuddé tuddee. Mm-hmm. di ñi nga xamanteni suñu borom borom wu leen gan. waye ñepp a yam ci mom lolu moom wax deug yalla ñepp ci mom kon suñu borom nako gëna sam yagal ko fi lool waye sëñ Mamour benen mbir waye lu doy tan nak lu ma marqué moy foko mëna fekk ku man di waxal ci adina so excès duggu ci Cheikh Rafal paré na fofu tey loolu moom mën naa koo seere ci moom. Mhm. koo dama laa xam ne koo fa mën a fekk. ak lu mu man di nekk. soo xasee egg si toog dugg ci maam Cheikh Ibrahima Fall wala mu gis ne ci kër Cheikh Ibrahima nga bàyyi ko. Mhm. moom bàyyi na lu mu doon def moom. Mhm. maanaam kay yow la ci mi ngi ci yow ba kere ngay dellu mu door a àggale li mu doon def waaye Cheikh Ibrahima moom lu mu ko fekk mu dog ko. day day day mën naa koo seere ci moom. day firndeel li mu naan deretu Cheikh Ibrahima Fall mooy daw si man nga xamante ni. yemul ci wax ko kase mhm. waaye dafa teg tànkam foofu ndax lii ñu wane léegi rek ak ICA mhm. yi gis nga ko mhm. di euh, maanaam <clears throat> dundalaat dëkk yi nga xamante ni dëkk waajuram wu tedd wala waaye te gorlu ay ay ay àll mhm. yóbbu fa ñi nga xamante dañ ko topp rek te suñu borom rek tax ngir jëmmi sëriñ bi mhm. di fa liggéeyal loolu yàlla euh, nu mu waree mhm. ñoom it ñu doon ñu jàmbaar ñi nga xamante fekk si nañ ko moom day firndaal li ñu doon wax sànq naan yoon wi moom du yoonug wax yoonug jëf kese la moom de mu ngi ci wallaay ndeysaan li gën a yeme déggoo ko fen gisuloo ko fenn euh, mus naa dégg euh, ñu ne xëy na mbokk yi ñu ngi ñuy déglu mus ta xam tarmagu aéroport nu mu mel maanaam mos a jël avion. <laughs> loolu moom euh, xëy na bu fekkee Moustapha dem mm-hmm. benn lay doon wala ñaar. Mm-hmm. waaye ngir jug pour dem tukki. loolu mm-hmm. doon woon sax a yitteem. kon nag moom mu ngi diggante tuba dox ndakaaru gu far delluwaat li si des mu ngi tool yi. tey tey tey tey tey tey ñi ci biti. Mhm. ñu la ñu la ko gën a xam de. sàn ci ci ci faj aajo. ñi ci biti waaye nag loolu xam nga signalim Batara loolu moom loolu loolu moom dañu yéem waruñoo yéem. ndax mhm. xam ne tax mooy. Cheikh Mouhamadul Fadal mooy waajuram. te sëñ yaa ngi gis sëñ assis mu sëñ Moustapha Fall nee na jaan mat na nit ñëw ci daara ji fekk sëñ lu génn. ñu nee na koroog ñun ñoo jël téléphone bi woo ko sëñ bi na ko dëpp nañ ko dëpp fi jàndi ne ndeysaan ah, ah, waaw hmm? ah, rek lay jur wër na de loolu rek la kon nag ñi ci biti ndax man ñaata nit ñoo xam ne waxtaan yi ñu def ci maam Cheikh Ibrahima ñu teg ko am ñooñ dañuy woote bitim réew di seere mhm. ne foofu lañ toog sama borom boole leen ci gént wala ñu woo ko téléphone képp jot ko moo mhm. fa seen aajo te génnul dem fenn te ñoom it yéeguñu avion ni dëgg la waaye sëñ Touba moom mhm. mooy moom mu mbiram moom xam nga. mu ngoog lii nga xam xamante ni dégg nañ ko si moom di kàddu yi. Mhm. doon na baax ñu xamal mbokki taalibe yi nii. lu mu lu muy lu muy dund la. kon nag sëñ Abdou Karim a ngi nii borom ba Karim Akhlaq. Mhm. di di di di sunu di di di di mhm. di di di di doomi Serigne Fallou. ñaan sunu borom yàggal ko fa loolu tamit mboolem njaboot gi nag. te ñun ñëpp ndax ñi ma ci jotu moom. moom ay Baye Fall lañ. dëgg la am na soxna suñu ci dajal Mbàkke Kajoor. wër na ñu koy leeram la bëgg Seex Ibra Fall la moom ci laa ko xam. wallaay wallaay ah, def sëñ Galas itam mu des

axlaaq ak mboolem jàmbaaram yi nga xamante rek kon ñoo ngi fu ñu mën di nekk rek. si àdduna bi xumma yaay sooda xumma di ko ziar bu baax a la ngir ñu gën a euh, mu gën a yokkaat sunu pas-pas te yaakaar ñu ko dégg yokkaat na si ñoom dara kon yoon wi yoonu ko liggéey kese la yoonu góorgóorlu yoonu tegu si yoon yoonu makaarimul axlaaq ni nga xamante moom la ko waxee kon sëñ Mamour ñu jàll si ñaareelu mm. ak Serigne Cheikh Ngounda Fall moom it si pas-pas bu mm. yaatu bi nga xamante ni maamam maam Cheikh Ibrahima Fall rek ko ko mm-hmm. ñu teewlu ko te dikkaat nag ànd ak mbokki taalibe yi. Mm-hmm. ci téléphone bi bu ko defee mën a saafonteex ñoom dina si am solo lool sëñ Maama. màkk ak Medina bi yonante bi salaasam du jóge nee mel melunu woon ñam fi bàyyi ñoo ko melal lele kon ñunu dëkkub Sëriñ Tuubaa bi ñoo ko mel ñoo ko war a melal nu mën a mel rawaate dëkku kër kër Cheikh ndax ni ko sëñ Moussa Ka waxee bale ak root ak togg joxe te man gis naa ci sunu kilifa yi nga xamante ne ñooy jabatu Cheikh Ibra nit daan wére di ñëw ci ñoom lu nu bind téere jox ko ko jox saafara dañ ko bàyyi ci kër ga muy bale ak root ak lekk ci ñam bu wer tek naa sama bët du kenn du ñaar ah, ah, waaw kon nag mbale mi nañ ci taxaw ah, te itam nag li am solo ci am mu rëcc mooy ndigal lu ñëw nga fàtte la jàll defe ne lii teew rek ci sag defaru ne la ma leen ko noonu waxe nag ki la gën man la raw la ëppale la su lay laaj alalam di ko booleeg sa alal su lay laaj sa alal di ko booleeg alalam da laa bëgg a -hmm. te sëñ bee nu gën sëriñ bee nu man sëriñ bee ñu raw sañ bee ñu ëppale waaw kon suñuy laaj ñu alal di ko booleek alal mu doonoo bëgg a dimbale waaw ah, sëriñ bi lu mu doon rek mënal na ko boppam ah, kon nan xam loolu te góorgóorlu ci waaw ah, suñu kem kàttan waaw jërë ngeen jëf sant naa leen bu baax gis nañ nag positif waaye nañ dàggiwaat positif yi kenn ku ci ne ndigal lu ñëw na defe ni ndigal li moom dong moo ko mën a moo ko yeyoo te kenn ku ci nekk itam moo xam ne ni ñëw ci moom luñ ko man di wax ak man mii lu ma ci deful du ma ko am kay ñëw fi moom di ko soññ lu ci deful du ko am te am na ci ñooñ nag loolu damaa jaaxal ci ñoom am na ci ñun yéen a ngi fi waaw nit ñëw fi yéen ñu yebal ko ngir ndigal ngeen di ko baaganteloo te ëllëg suba de te moom ma mi ñëw ci yéen la ngeen di def da koy def te kenn ku ci ne daa waroon doxal boppam yóbbu ko te du ngeen ko def man mii sax damay ñëw ngeen dama wax sëñ bi nangam sëñ bi nangam te li ngeen di def seen bopp ngeen koy defal deful leen ko te ñoo ànd ak yéen nag te yàlla tax lan boole yéen nag ci lañ leen fas fas yéene awale seen ñaq wi jëriñoo woon ko waaw dañ leen koy defal foo xamante ni ëllëg su ngeen ko soxlaa jël te man mën naa faat ni lu ma ci waay jox ëllëg boo ma ne ana man la mi ngi nii waaw fas yéene ndax sëñ Saliou ma waxoon ne ñaq góor day jaay kon nag seen ñaq bii ah mayul leen ma ko lebal leen ma ko fa ma leen ko war a dugal laal koy dugal coow yi ak yenn yi nag dootuma ci fekk ndigal bu te danaa fexe incha allah ba yéen ñi ma ko seqal ngeen yëg ku ci def baax na ku ci deful boppam sant naa leen nag gis naa taxawaay bi ndax lee fa ne Pastef fa ko def kon Pastef yooyu la jëm jaajëfal bu baax a baax sëñ Mamour ah. euh, sëriñ Cheikh Ngounda Fall euh, ci pas-pas bi ku ànd ak moom boo melee neneen rek yow la ah. uh, mm. iya, iya, iya. nan la xolat wax deug yalla mom de mu ngi fa mag ñi nekkon tay yow xam nga ci dara seigne mamou deug lim wax seigne salih Mbacke dan na wax naan ñakkus su gor day jaay ci nak li ngeen may jox ëlëk ku ma ne anamu man la mo ngi ni ndaysan loolu de moy pacte bi yaakar na moy li wara dox diggante ki mm. nga xamantene mo dox sa diggante ak seigne bi sëñ maamu <coughs> xam nga seigne ali mbadara seigne Cheikh Ngounda mom moom daa daa am fu mu ne loolu <laughs> loolu nag mboolem ñi bokkal Cheikh Ibra seeral lañ ko ko ndax moom pas-pas bi moo rëy euh, mun naa leen ne euh, ku ku ànd ak moom ku ne dama koy war faral di wax saa su ne bu yow nga bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax itam li mu moom moom dafa da wax boppam <laughs> fii laa ne euh, képp ku bëgg ànd ak man fii ngay ne xam loolu dafa leer moom moom moom kenn du ko sonal ëllëg moom ndax li tax moom mooy dalaa wax lu leer nañ <laughs> xam nga loolu leer na dafa am loo xam xam nga nag doo nekk lu la neex ba pare boo lëggee nga naan ko ah nangam mhm. déedéet parce que moom wax na ren fii laa ne léegi nag yow mi ànd ak moom yaay xool ba xam ndax foofu mu ne fa nga nekkam déet soo fa nekkee yaa ngi moom a mhm. soo fa nekkul boo léegi bu ko lijjanti <laughs> nekkal ci sa bopp ndax ndax da ngaa newoon ci sa bopp kon nag yoon wi mu joxañ ndax moom pas-pas lay doxee mhm. lu mu am jox sëriñ bi xam nga keroog bi muy jox seex sëñ sëñ bi muy jox euh, sëñ seex jëmm oto bi mhm. booba bi mu bi muy génnee ci ci ci man xam naa oto bu mu dugg kam mhm. <laughs> te sax wulëre la dëgg la waaw oto bu mu dugg eh, borom oto bi wóllëreem la xam naa ko bu baax mhm. mu xayra la dëkk gis naa oto la dugg nga xam ne kon moom yoratul oto sax bu mu war waaw nga xam ne dañoo daal di yëkkat maanaam ci saasi la la am ku gaare otoom na ko yéegal fii ñibbi. kon mu wóor na ne itam noonu. lay ni du joxe oto bi du lu mu bu du lu mu dara ndax moom li xanaa li ñëw moom rek. Mhm. li te Cheikh noonu la daan joxe de. daawul calcul. xam sa xam nga boo gisee Baye Fall ba tey ñuy añ ay tàkkusaan yooyu yëpp loolu ci kër Cheikh Ibrahima la tàmbalee. waaw jar na leeral nag seen maamu. si dépense daw fanaan këram. Mm. déedéet daw fanaanoo dépense. cheikh ibra motax agn bi di naaj ah, motax agn bi di naaj maam lu xey de lu ñew ci suba gi day dem lu ñew day dem rek ba takusan jot waaw ni doora tal agn ngon gi lu ñew dem ba guddu jot ni doora tal rek non non lay def waye dépasse daoud fanan keur cheikh ibra cheikh ibra dawut fanano dépasse mhm. comme ni ñi def ni xey am dépasse na eh, dedet dedet cheikh ibra mhm. euh, lu massa am jox nako seigne touba tay xam nga cheikh ibra banku seigne touba la won la ilaha illallah am wax na la ko bankam bank mom moy mooy alali së bi rek mooy Cheikh Ibrahima. waxtu wu ko neex la koy la jël si. jeex na ndax mm-hmm. firnde li mooy koroog bi sëñ Saliou Fall tawa. Mm-hmm. Euh, jëlee fukki xar maanaam koroog bi bi sëñ Saliou Fall tawa yónnee fukki xar ak ñaar Cheikh Ibrahima. Mm-hmm. xam nga ñu ñu ñëw fekk maam Cheikh dem gébb mu dabi ko. nee na bàyyi ma ko jox fukki xar ak ñaar ni ko yutal ma ko Cheikh Ibrahima. koroog bi mu egg gébb di ko jébbal Cheikh Ibrahima dafa fekk sëñ Tuubaa bind lettre Cheikh Ibrahima di ko laaj fukki xar ak ñaar. Cheikh Ibrahima borom denc bi day ab dencam. Mhm. kon xam na ne lu fanaan ci moom sëñ Tuubaa ko moom. que. moo tax da daaw daaw daaw bés bu yàlla sàkk daraan yónnee ci maa a kan moom nga xam ne moo moo daan denc addiyee yi mhm. daraan wax yónni ndaw dem leen ci Ibrahima kan ne leen ko loo xa nekkoon na leen ko Baye Cheikh kan waajuru Baye Cheikh kan ñu ngi mhm. ñu ngi koy ñaanal bu baax te ziar bu baax a moom ma nga Mbàkke Xajoor jàmbaar dëgg la su ko xam nga loolu day day kon Cheikh Ibrahima bànkub sëriñ bi la woon lu ma a fanaan fi moom rek sëriñ bi xëy yónnee loola <laughs> mos sa denc dara xam nga Cheikh Ibrahima xam nga daa gëmut woon daana wax ne deesut denc junni ci poos ñu laaj nga joxe téeméer te na yéene woon naa junni dégg nga <laughs> Cheikh Ibrahima ne yéene du fekk dara ci poos doom mhm. waaw nee na junni ba ngay jël joxe ba mu jeex nga jël yéene nag gàcc ci junni ba waaw boo waaw boo jeexalee mbaa nga leb jox sëñ bi. wallaay maam Cheikh Lo maa ngi koy ziar bu baax nee na ma boo ma sonn leb jox sëñ bi ni mu neexee. <laughs> <laughs> dootoo <laughs> waaw. loolu la nee na ma damay joxe ba mu jeex ma jooy teg ci waaw lool la xam yoon wi. dafa am leb joxe leb ah. joxe boo amatul foo leb jooy. nga jooy waaw. waaw muy yéene foofu foofu sëñ Cheikh Ngonde mi foofu la nekk. lu denc dara lu mu am jox sëriñ lool loolu nag képp ku ko yaakaar moo tax léeg-léeg muy joxe addiya da ngay gis mm. da nga siy gis sax ay weccet waaw xam nga ay million nga tegale ko ba pare teg ci ay weccet ba ay fukk ak juróom sax ay million yu ràngal yu tege ba ay fukk ak juróom ak i juróom ñaar dërëm teg moo lay xamal ne kii denc dara xoolal luñ ko nuyoo sax mu jël sànni ci addiya ji na kon moom buy joxee day bëgg a miraas boppam mhm. mooy la maamam tegoon tànkam ndax Cheikh Ibra bu daan jox sëriñ bi mhm. da da da da daan buub lépp yër ma gee tax mhm. daf ko mos mu neex muy yéene ko jaam ñëpp moo tax muy wax fii muy wax moo tax ndax xam na ne xam nga ñun suñu yoon wi dama laa wax ne la wax mayewu fi dara jëfe fii maye dara Cheikh Ibra nee woon na kër gi du kër gu ñuy waxe kër gu ñuy jëf la te loolu fi firndeel li mooy sëñ Cheikh jëm mi fi nekk ndigal yaa ngi ci kawam ba tey. te saa su ne leneen di ñëw. dëgg la de Baye Fall yi moom naka jekk di leen fi seen maam bàyyee ba tey. Mhm. la seen maam nekkoon ci lañ teg seen tànk. ngasum raay mi firnde la. Mhm. bi Cheikh Ibra fekk na tàmbali bi. Mhm. xëy na àgg. àggale bi fekk na ko mu bàyyi koo fi. waaye ba tey Cheikh Moustapha Fall ànd ak mbooloo mépp ñu ne ci. te naka jekk ne naa la junni nit ak juróomi téeméeri ñoo ko doon gas. Cheikh Ibra Fall la joxe juróom-ñaar téeméeri. loolu bàyyi Baye Ibra Fall Madior ci moom laa ko dégg. ñu gas raay bi ba mu àgg. Hmm. liggéeyu jumaay Touba jumaay Njaaréem. korog bi seexi Ibra Fall di joxe gaalu xaalis ga sëñ saa Niang yanoo ko Thiès. am hmm. ànd ak sëñ ma Massamba Ndiaye wàq. ñu ñëw gaalu xaalis googu sëñ Modou Xëyri Jaxate la dégg ci làmmiñam muy lim ña joxe ak lañ joxe. waaye ba mu egsee ci Cheikh Rafal def na gaalu xalis gu fees dell la mënuñu koo lim. te loolu mooy lim njëkk gis nee na mag ñi Baye Ibrahima Thiam ko ko nettali moom la Cheikh Rafal tàmbali ci liggéey ba keroog gaalu xaalis gu fees te gaal goo xam ne def nañ ci alal mëne su koo yenu sëñ Moussa Ñang Kol sëñ Moussa Ñang mi nga xam ne doolam la jébbaloon ci Cheikh Ibrahima Fall keroog ñu mhm. doole laa yor baax Baye Talla Baye Talla Ñang ñu ngi koy ziar bu baax waaye xam nga ma ngoog xam nga doole jébbaloo doole moom mooy joxe boppam ba pare te lam jaayante woon na sama doole lay jébbaloo firnde li mooy gaalu xaalis moo ko yanu Cees ba Njaareem ba ci des mooy baskil ba njëriñ bëggee bu fal kon lam jaayante woon na dooleem lay jébbalu def na ko moom te sëñ Mamour li ma yëm mooy mhm. euh, maanaam euh, jamono ji sëñ Cheikh Jëmb mhm. wala Baye Fall gi suñ ko boolee lépp mooy sëñ mhm. Cheikh Jëmb rek moo nekk si bopp ba ndigal yi nga xamante ne ñu ngi koy jot di ko euh, di ko di ko di ko jëlee kër Serigne Touba di fàttale ni ñoom li ñuy wax rek du ñu laaj ndigal ndigal moom dañ koy toog xaar mu fekk si la ndigal yooyu wàññiwul dara ndigal yi xamante ne mooy seen aada yi ñu aadowoo di kon ndigaluk euh, addi addi yi ñuy joxe at bu jot mm. ndigaluk koor gi ndogu yi mm. ndigaluk tabaski yi nga xamante ay ndigaluk aada yooyu at bu jot dañ koy def mm. yeneen ndigal yi leen di fekk si wàññiwul si ndigal yooyu dara da koy gën a yokk sax waaw xam nga sëñ Alioune Badara am na mm-hmm. sax lu lu loo xam ne sax mm-hmm. su ma la ko waxee dana la xaw a jaaxal loolu mu jaaxal keneen bismillah mooy bu di sa ndigal xasee rot ci seen kaw mm-hmm. est-ce que xam nga ne ñi mu ñoo tegg war seen tànk foofu te àggut te seen kër kenn doon fa joxal dépasse léegi fu ñuy jëlee loolu 奈奈奈。 dama loolu laa ko xam ko xam laaj bi sëñ Mamour. na woote si 88 628 19 07. waaw loolu kenn du ko tontu 33 824 52 81 ngir ngeen bokk nag. si mhm. eh, waxtaan wi tey saafonte la waaye li ñu gënaloon ku woote. Mhm. boo amee loo eh, seere sooy eh, def si yoon wi. Mhm. wala rek loo xamante ni xaw mën nga ko mën a laaj. sëñ Mamour a ngi nii bu ko xamee dina ko tontu si kattan yàlla. man de lii may wax nii ci suñu kër laa koy tàmbalee. sama baay sëñ Assane Ndaw ak sëñ Mourou Ndaw de ñoom. ba ma xamee xam ko ba tey xelkoom ba liggéeyi jaar yëpp ba ma xamee xamle ko ba tey jii day ndigal lu mas a ñëw fa lañ ci ñi njëkk xëy la ñuy bokk ci ñuy mujjee wàcc la ñuy bokk te gisuma ku leen joxal dépasse seen kër sëñ Mamour am na ko tàbbi loolu wér waaleykum salaam wa rahmatullah ngi ziar ñu ngi delloo ziar bu a baax bu baax a baax ñu ngi Seen la ah a a Ndaw moom maamam Baye Cheikh Ndaw. Hmm. bu ndigal ma saan a jóg. ndeysaan. bu sa sama kër Baye dara du fa des. tey. Baye Fall loolu lañu daan dundee. ak ngi koy ziar bu baax a baax. jaajëf fii ñaanal guddi gi fan gu ànd gu wér. amiin ñu bokk lépp. barki maam Cheikh Ibrahima Abdoulaye Fall waaw ndeysaan jërëjëf dégg nañ bu baax a baax jërëjëf jërëjëf ñu rafetlu émission bu baax a baax jërëjëf jërëjëf na yàlla defal dégg ak topp rek amiin amiin jërëjëf ndaw ndeysaan soxna seen daaru xan di ko ya, ziar bu nah, si jotaay yi di si ziar bu baax soxna di sunu waajur nekk kon eh, ca eh, yëmbal ñu ngi koy jaaw bu ah. baax a baax wax dëgg yàlla ah. moom it si ah. pas-pasam di ko Baye Fall dëgg sëñ Moussa Sow mm. mu maître ma dikke ñaar waaw sëñ Moussa ñu ngi baax a baax a baax a baax ku am pas-pas ak dëgg la mm-hmm. di bàyyi xel bu baax a baax jotaay bi kon ñu jalaat beneen bokk salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax Euh, kon seigne Mamour day bax ñu xaar leen ci 88 628 07 waaye di bayyi xel wa biti réew mm-hmm. euh, dinañ ci ñew legi inshallah allah si mm-hmm. facebook bi ci youtube bi mm-hmm. nit ñi topé sank wax nga ko mu doon lu am solo assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah jori ñam ñu jaar seigne Mamour Ndaw wa seigne bi yokal kaddu gi ya xooba Ndiaye taxi man ah ha seigne yang Ndiaye. ñu ni lay sar bax dalal ko ñu ngi jaar bu baax baax. sëñ yaa def chaque jour émission bi du ma raw barke Cheikh Ibrahima kontaan naa ci yéen lool lool lool. bokkoon naa jërëjëf jërëjëf Ndiaye. suñ bi yàlla si Seera Fall mi liggéey yàlla na leen say. ba amiin amiin nu bokk amiin nu bokk Ndiaye yéen ñuy gindi ndax ñoo bokk Seera Fall. ndeysaan lu bare bare xamu xamatuñu ko te lu bare bare yéen ñu koy xamal. mag ñu bare ba maanaam suñu tool yoon li ngeen ñu wan sax li ngeen li ngeen ñu wan sax suñ bi xamu leen ndax suñu tool ay dongo lañ bëgg di jëfal Seera Fall te yéen ñuy wan yoon yi bu baax a baax a baax a baax jërëjëf Ndiaye des fois nga toog xalaat sax dara def ko. Mhm. boo toogaatee xalaat seen wax de rek dana ah man tam ndeke yoon la ma doon def. lii lii lii kat mooy yoon yi ma waraaw. lépp loo bëgg a def di ko xalaataan ngir seen jëmm ji. Mhm. wax dëgg yàlla suñu ko sedd na ndax waa Kër Seera Fall. jërëjëf Ndiaye Kaba mooy sama sëriñ maa ngi ko siyaar bu baax a baax. waa Kër Seera Fall waaye nag ñoo ngi ñoo ngi dëkk yéen di kontaan nga xam ne saa su ne bu ñu déggee bu ñu dégg ñoo ngi leen ñaanal di bëgg ci yéen saa su ne barke Cheikh Rafaal. ndeysaan jërëjëf. ma yàlla nangu ñaan yëpp baax yàlla na ngeen si yàgg te gën a mën nu bokk barke Cheikh ñu ngi bu baax. waaw euh, baax a baax. ndeysaan alhamdulilah. baax jërëjëf jërëjëf kontaan <laughs> te gars yi dina si Yankuba <laughs> Ndiaye lay wootee moom it ah, di taximaan suñu Mamour <laughs> ay murid lañ ndeysaan bisimilah ndeysaan waaw di ziar baax waa Thiès xam nga ñoom dañuy bàyyi xel saa lu wér ñu jël kii te si mm. salaamaaleykum mm. maaleykum salaam. ah ku baax. ñoo ngi jaar bu wér. ñu ngi jaar bu baax tur bi ak fooy wootee. Mor Ndiaye. Serigne Mor Ndiaye. waaw taalibe Serigne Ngunda bu sëñ Basiru Fall Alxuraan. ndeysaan Serigne. sëñ Ngunda Basiru bu sëñ Basiru Fall Alxuraan. Hmm, te sëñ Basiru Fall Alxuraan. Mhm. waaw. maa ngi koy jaar bu wér. yàlla na yàlla nangu ziar bu baax sama wóor la. Mm-hmm. maa ngi la koy laaj saa su ne ndeysaan ñoom leen di bëggee di leen ñaanal nag jërëjëf yoonu Baye Fall moom yéen ñi koy taxawal bu doon na day taxaw tey ma ne ñu koy taxaw yéen ci ngeen bokk mm-hmm. ndeysaan jërëjëf ñu ngi leen di sant bu wér nag ñu ngi bëgg nag saa su ñu ngi bëgg nag jaajëf alhamdulilah waaw yàlla na leen si yàlla bàyyi ci barke seen bëgg amiin barke Cheikh ndeysaan lii dafay ah. am solo lool sëñ Mamour mm-hmm. ndax mbokk yi moom tey ñoom lañ ko jagleel ndax xam nga ni saa su ne dañ koy bëgg sëñ Mamour yaa ngi woon si waa Thiès Thiès moom Cheikh Ibrahima nee na ab Thièsam la waaw <laughs> waaw damay njëkk damay ziar bi yëpp dañ koy teg ci loxol njabootu sëñ Bay loolu ñu jël mbokk bi te ñëwaat si salaamaaleykum mm-hmm. waaw waaw di ziar baax sëriñ Cheikh Lo ak mm-hmm. mboolem njabootu sëñ Mbaye Lo gi yëpp am mm-hmm. eh, Amdi Lo Baye Naar Lo dëgg la waaw Baye Sëriñ Lo ñoom ñëpp fàttali leen waaw sëñ Badaloo nag moom suñu wóolëre la eh, di ziar baax a soxna Ndey Ñing dalal nekk foofu ci dalal mbokk mi ak sëñ Moussa Lo dalal ko mbokk mi bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam ah Baye Mamadou waaw kooku sa ndongo bi Maguette Gueye Ndiarème Gueye Madiar hmm? sa ndongo bi Maguette Gueye Ndiarème Asin maget, Maguette sëñ Maguette lay ziar baax baax ana waa Njaareem baax baax ñu fi ñu ngi si jàmm baax tubaarkàlla namm nañ leen waaw ñu fi ñu ngi si baax ah ndeysaan alhamdulilah waaye yéen ngi si baax rek maa ngi doon lay sant bu wér ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax baax ndax da ngeen da ngeen ñuy dundal daal ndax ay ndaw ngeen ndaw maam yi daanaka jox kon nag duñ def lu di leen ñaanal rek te di leen topp saa su ne rek. amiin yokk suñu pasteef suñu pas-pas saa su te yitti woowu waaw tamit. Mhm. waaw tamit xanaa di leen gën a ñaanal taw fii si maam Serigne lépp waaw te di ko sàkku si yéen rek ak maam Serigne Fall. ndeysaan jërëjëf. ngi jëf am nañu mbégte bu baax nag Fall Ndera. ndeysaan jërëjëf jaa ngi jëf maa ngi siyaaba ëxutu foto yëpp rek Fall Ndera. Mhm. ak waa li ci technicien Amadou Bamba bu Ndiaré yëpp rek ñaanal ci cafaar boobu yàgg si loolu ci ànd bi amiin ñu bokk lépp noonu laa koy ñaanale ma njaxat bu sëñ Abdou Wahab Mbacke amiin amiin jaajëf Fall Jaga kon ñuy wax jaajëf kanaan ak jàmm jërëjëf Baye Maam sant nañ bu baax di ziar baax comme ni ma ko soxna Ndey Ñing foofu ci Thiès sëñ Moussa Lo ñoom itam di ñuy bëgg a jësul murit ak waa kër gi yëpp ci Medina Fall fu Ersan ak rek sunu bismillah mbokk yi salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, Cheikh bi. waaw kooku. ñu ngi ziar bi ku ñuy wax Assane Diaw Baye Fall. ah sëñ Assane Diaw <laughs> ñu ngi ziar bu wér. jaajëf sëñ Assane. alhamdulilah. jaajëf alhamdulilah sëñ Assane fu ñu wootee waay. man maa ngi wootee Pikine. Pikine Pikine jaajëf sëñ Assane ana waaw yow day sa mbokkum bataali bi man daal. ndeysaan wax ji li moom lu ma gudd ak lu ma gàtt bu jeexee bu gaawee. sëñ Cheikh Ngonda daal. ndeysaan moom doy na sëkk rek. doy na sëkk doy na sëkk. ndax <laughs> euh, loolu sëñ Baye Fall moomu wax. waaw doxinu sëñ Cheikh Ngunda ku ko xam. Mhm. xam ni foofu mu teg tànkam foofu la. ndeysaan man ñii de. Mhm. wér na ma cëng man taalibu sëñ di la mhm. sëñ Assane Fall lañ ma tuddee. ah ndeysaan waaye sëñ Cheikh Ngunda moomu. daanaka ñoo yarandoo sëñ Saliou Fall nu boole. ndeysaan. ndeysaan ndeysaan kàddoom gi am na solo lool di di di seere rek si sëñ Cheikh di ko jaar Fall bu baax a baax moom ma rek alhamdulillah fàtte wuñ sëñ Cheikh Fall Mboor ñu jël mbokk bi salaamaaleykum bismillah waaleykum salaam wa rahmatulah waaw ku baax noo tudd ak fooy wootee maa ngi tudd maa ngi tudd Fallou Diaré xam naa nga baal ñu yokk kàddu bi tuuti rek maa ngi tudd Fallou di ootee kan iya, eh? kan eh? Tëngéej Fallou Thiaré Tëngéej. ah sëñ Fallou Thiaré Tëngéej. jaajëf ana mbokk Tëngéej yëpp jaajëf ñu ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi fi Baye Mamour ñu ngi leen ziar bu wërëwër. alhamdulilah tubaarkalla. naka yitee ñu ngi leen ziar bu wërëwër. jërëjëf alhamdulilah. di leen ñaanal yàlla yeneen tubaab Serigne Tubaab maam Cheikh Rafa. amiin amiin li ngeen ko xam. amiin baak Cheikh yàlla na Serigne Tubaab defal defal leen lu koy seen jox. amiin ñu bokk amiin amiin. Euh, li ma bëggoon wax rek mooy. Mm-hmm. maanaam murid si boobu ñoo war xam ñoo toll si xam si mu nekk nii li ñu yor. Mm-hmm. ndeysaan. xam nga benn tubaab dafay seetlu yoon wi ba si yàgg mu ne ma sëñ Fallou mm-hmm. ma ne ko ah, mu ne ma murid bi bu doon si dëkk rek neex na. Mm-hmm. Baye Fall jaar fii Hizbut jaar fii ñeneen ñi jaar mu ne bu doon si dëkk rek neex na waxatul nag baat bi rek ci kon di leen ñaanal. yàlla li ngeen si séntu yal ko yàlla defal. di seede tamit sëñ Cheikh ba ma amee fukki at. laa commencé gis sëñ Cheikh Ngounda Tëngéej bésu 31 décembre bu ñu def Tëngéej. Mhm. c'est ça. mu yàgg nekk nit koo xamante ne nii la ma sama. Mhm. Mhm. tëgg ji moom fu mu ko fekk fa la koy bàyyi. c'est ça barke Serigne nii laa ko xamee. kon kàddoom yi ñëpp xam ne mu. mu bëgg a dox. soo gisee kàddu sëñ Cheikh di sëñ Cheikh Ngounda di nga xam ne lii nii dëgg la te yoon la. alhamdulilah. yàlla na ñu sëriñ Tuubaa may dégg ak topp yàggal leen amiin ah, ñu bokk yokk télé bi ba nga xamante ne képp fu murit nekk doo doo am benn mbégte lu dul seetaan lam mm-hmm. amiin amiin amiin ñaanal sëñ Cheikh Sidi Muxtaar yéen di oyof lool te mu yeggali lépp amiin amiin sëñ Muntaxa tamit mu yàgg si lool di ñaanal sama sëriñ sëriñ Aliou Mbacke mu mu yàgg si lool moom tamit amiin ñu bokk lépp barke sëñ mm-hmm. Tuubaa jërëjëf jërëjëf <laughs> ak Fallou Thiaré ndeysaan di la ziar bu baax a baax itam eh, Tëngéej ndeysaan di ziar sëñ Modou Ngom Tëngéej ak euh, sëriñ Moustapha Sy ak mboolem euh, di ziar sunu bàjjen Fat si soxna Fat Sis Fall di ko ziar bu baax a baax monsieur Cheikh Ngounta salaamaaleykum bisimilah salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ah ku baax ñu ngi ziar bu baax ziar bu baax a baax sëriñ Anta Mbagara ñu ngi ziar bu baax Moustapha Gueye Touba Guédé ah sëñ Moustapha ñu ngi ziar bu baax a baax ana waa Touba Guédé naa moom ci ngi lay ziar bu baax. tubaarkalla. di am mbégte bu baax a baax. ndeysaan. di sa borom kàtt na leen. ndeysaan yàgg ko te wéral leen. amiin amiin. li ngeen yéene liggéeyal maa ngi koy waraan sax lépp saa bu a njor. amiin ak Cheikh. fii maamu doon nga wax ci émission bi. waaw. maanaam biir réew mi bitim réew ñëpp dañ koy bàyyi xel. waaw am na loo sax. Mhm. man damaa xam ne man dong nga xamante ni ñëpp dañoo wax ne rek. Mhm. damay bàyyi xel rajo bi ak télé bi. dañ wooyu fu nekk. Mhm. naan émission jësu murid jësu murid naa nga mën. nga émission la bu yor nit ñi. nit ñi nit ñi dañoo sopp Mame Cheikh li li ñu waxal ci dafa jéggi dayoo. waaw ah, dafa jéggi dayoo wala lancé ñu ngi leen di jaar bu baax a baax a ñaan safar kàttanal leen. amiin ñu bokk lépp. ñu liggéeyal Mansour lépp ngeen def lu kaw ndax fi ngeen di waxee ak nit day tax nit ñi dégg Mansour ndax euh, Mansour daal nekkul ci. day tudd ay aay yu bare ci tiir yi waaye dañ koy maam da ngay wax ak nit ki loo xamante ni su xoolee gis ko su ko làmbee daj ko. Ah, ndeysaan. kooku ngeen wax ak nit ñi da ngeen wax maam da ngeen wax loo xamante ni suñ ko xoolee gis ko suñ ko làmbee daj ko. ndeysaan. gis nañ taalibe bu mel noonu wala ñu gis ab sëriñu Baay Faal bu mel noonu ba pare taxawaay bi nga xamante noonu la Maam Yaram Fall meloon diggante Sëriñ Tuubaa ak ak ba léegi ngi ko fi nekk ak taxawaay bi noonu moom la nekk mhm. léegi daanaka ka ka suñu xam-xam ci Baay Faal mhm. daanaka ci Sëriñ Moodu Aminta Fall la tàmbalee waaye xam nañ ci lu bëree bëree bëri dañu suñu borom fayal amiin baax a baax am na bu baax a baax hmm. jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa Gueye Touba Guédé lay wootee sëñ Mamour waaye sëñ Mamour di beral nuyu ak ziar waa Fatick mhm. sëñ Mbayka moom ah, sëñ euh, Cheikh Jëmb moom mhm. euh, sëñ euh, moom moom sëñ Cheikh Jëmb comme dinañ si ñëwaat léegi incha allah asalaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi baal ñu yokk kàddu gi mm. waaw naa kàddu gi suufe na bu fekkee mën nga yokk sëñ Mamour mhm. waaw xam naa ni accès eh, gul kon sëñ Mbayka ni ma ko waxee ca Fatick moom ak eh, soxna Maam Jaara Ka eh, soxna ay Gueye soxna Sukay Ka soxna Ndeela Ndongo ak Serigne Modou Ndiaye Baye Fall ak mboolem waa Fatick yëpp rek mm, moom salaam kooku Alioune Badara Ndiem hmm? sëñ Alioune Badara Ndiem maa ngi siyaar baax baax delloo ziar noo tudd ak fooy wootee Moustapha Diatta laa tudd. Serigne Moustapha jaata Diatta Diatta. jaajëf sëñ Moustapha. Diatta maa ngi maa ngi woote fii ci pencum sëñ Moura Ablaye Fall. ndeysaan ah, ñu ngi bu baax a baax wax dëgg yàlla. waaw maanaam maanaam loolu loolu sëñ Mamoun wax léegi. ci mhm. ñàkk dépasse waa kër Cheikh mhm. Mhm. jigéen dama nettal. sëñ Moura Ablaye Fall mas naa ñëw di di di di di Mm-hmm. Ah, sama mam mm-hmm. mm-hmm. gi ñuy wax Serigne Moussa Pen waaw bam mu waxtu yor yor Serigne Moussa Pen tak la xasa gi duggu ci wañu taxawu taxawu ndab yi bañ bañ bañ bañ bañ sotal mu mu mu mu mu daal yobul sëñ bi ba boo di mu yëkkati ñaar téeméer ne leen ne leen togg keroog waa kër ga sombi lañ sombi lañ añee. <laughs> ndeysaan nga xam ne lool loolu ak taalibe la. waaw loolu am na. <laughs> lool moom waaw jéeme na loolu waaye. maa ngi di siyaar bu baax a baax. ndeysaan sëñ sëñ Mamoun moom maa ko siyaar bu baax. jërëjëf alhamdulilah. di di ko jottali euh, siyaare Baye Saliou Ndiaye. ndeysaan Baye Saliou Ndiaye waxtaankat ak. Euh, sëñ Saliou Ndiaye ñu ngi ko siyaar bu baax a baax. Mm-hmm. di siyaar seen jili sàmm ak ñoom ñëpp rek ndeysaan waaw suñu xarit moo doon waa Ndar fan yëpp waaw waaw waaw sama nijaay maa ngi leen di siyaar bu baax jaajëf waaw sëñ Aliou Badara Ndim moom maa moom moom moom sama soppaloo ndeysaan baax sama royukaay tamit waaw ndeysaan jaajëf bëggoon naa am seen numéro nag incha allah. incha noonu teel noonu jox la ko. baax na waaw jërëjëf jërëjëf. ko bu baax sëñ Moustapha Diané di wootee Ndar Fall di ziar waa Ndar Fall gépp sëñ ah, Mamour indi mhm. mhm. ci gën di ko ziar bu baax ñoom ñu ngi waajal sëñ Cheikh jëmm foofu incha allah mën na ko suba bu ci yàlla kooku sëñ Mamour di si soññee léegi nii ndax euh, sëñ Cheikh jëmm day dem porox poroxaan mhm. incha allah mhm. ëllëg jàmm si kàttanu yàlla si àllarba bi mu ngi mhm. mu ngi mu ngi Kaolack xam naa ni kawlak fa lay euh, bu fa yend it dina fa def ab diir doog a jaar noonu dem poroxaan kon ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel rek xam xam ni euh, euh, jotaay ak bi Ibra lay doon foofu la ca Kaolack kon mboolem waa Kaolack gépp rek ñu daal di ndeysaan waaye di beral ziar nag waa kër Alaaji Mbaye Diagne foofu ci Kaolack ñoom sëñ Xaadim Diagne ak sëñ Arouna Diagne ñuy bàyyi xel jotaay bi foofu ci Kaolack ak murid yi nekk foofu yëpp nag mhm. sëñ Babacar Mbacké euh, moom itam bokk ci njabootu sëñ Bachirou di sëtu sëñ Bachirou doomi sëñ Moussa sëñ mhm. Moussa mu sëñ Bachirou di ko ziar bu baax a baax mhm. di ziar mboolem mbokki taalibe nga xam ne ñuy bàyyi xel foofu ci Kaolack ak Poroxaan ndax xam nga ku mel ne soxna Bali Muntaxa moom itam mingi wajal diko bah, ziar bax te diko ñaanal soxna mam isa mbàkke ahlu kafe itam xam nga ne mom itam mingi wajal waye mhm. soxna fan bakenyas, ñas kaw mom moom jamono ji mu ngi sax tambale na mingi ci mom itam di ñaan sa borom defal ko mhm. euh sunu wayjur soxna soda jaxate mhm. mom itam mom sëñ bay jaxate mom soxna min tafalum cheikh ibrahim mom it mingi wajal inshallah jelal bismillah bismillah mbok mi bismillah waaw ah, bismillah waaw sëñ maamoon ndaw fal lay wuyo ndaw fay waaw ah, kooku man Modou Diagne Modou Ndiaye kolaban. ah sëñ Modou ana kolaban. Colobane isan yàlla bu baax alhamdulilah taarikàlla mbaam ngeen jàmm baax ay rafetlu yi de ah ndeysaan alhamdulilah yaa bu baax a baax alhamdulilah yi yendaa ñu de masha allah rabbal mhm. alhamdulilah kon nag kontaan naa bu baax a baax ci li ngeen wax ci xarfaal de ñoo gën bu baax bu baax baax de ñoo bu baax tey jii nag moom mooy saa gën a ñu woote ci télé. ndeysaan alhamdulilah. seen jëm yi ko waral nag. tubaarkàlla. ay kontaan bu baax nag. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf. siyaare ñun ñëpp. ndeysaan naa gërëm naa. tubaarkàlla siyaare ñun ñëpp rek. <laughs> yal na leen fi yàlla yàggal rek. amiin amiin ñu bokk amiin amiin. barke sëñ Tuubaa amin amin amin amin amin jërëjëf. di ziar mhm. baax waa Colobane sama sonu yaay sonu Amital eh, sonu mam Ngone gey ñom ñep nek fofu ci restaurant Serigne fallu mhm. di ko ziar baax sonu saytal ñom ñep di len mhm. baye xel bu baax baax way di ziar ya soora jaxate ñom tay sax ci guddi lañuy ñuy départ muy njabootu Cheikh Ibra Fall gu jigéen gi xam nga poroxaan ni ñu koy wajjal bu baax moy seen lépp kon nu waccu bu baax asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum oh, mel na ne am amna mbokk muy yeglu waye mu yokku kaddu gi rek baal ñu alaykum wa baal ñu yokk kàddu gi señ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di ziar bu baax. tubaarkàlla. waaw. Ngonda Seck Darou Marnane Taalib Serigne Mbacke Fall Ngonda. alhamdulilah. ngi leen di ziar bu baax. mu yokk kàddu bu tuuti. waaw waaw Ngonda Seck Darou Marnane Taalib Serigne Mbacke Fall Ngonda. dafa mel ne dafa leerul bu baax. waaw ah, bu yokkoon kàddu gi dina baax loolu wax dëgg yàlla. <coughs> waa kañ euh, ziar kon euh, sëñ Demba Sarr. Ah, euh, waa Kawsara gépp nag. di ziar sëñ Demba Sarr bu baax a baax mu sëñ Lamp Taal bi sëñ maam la sëñ maam Lamp mu Cheikh Sirif Assane. Mm-hmm. di ziar maam bu baax a baax ak mboolem njabootu Cheikh Sirif Assane gépp. ndeysaan jëlaat mbokk bi sëñ Mamour. waaw ah, bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw kay. waaw bu baax. bismillah ñu ci yalla yalla nangu ziar tur bi naka la jibi jibi jibi fay jibi fay jibi fay ok koy wote wax señ ma ma esfar esfar dakar ah, ah, esfar ana mbokk esfar yep waaw ñu ñu ñu sant baaxa baax kay alhamdullilah jaajëf fay jaajëf ziar nañ leen baax yow ak señ mamar mom yalla yalla nangu ziar bu baax fay waaw dama dama gis reportage señ bu ndafal bi rek motax ma duggu ah ndaysan jërëjëf fay waaw rafetlu nañ kàddu bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf Faye jërëjëf. waaw maa ngi siyaare sëñ Abdou Aziz Fall bu baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf Faye. waaw. jërëjëf xool fu mu toll nii moo feesoo. Ah, dëgg sant nañ leen bu baax a baax ñun moom taalibe ci ci yéen la ñuy gindi ko wax dëgg fa. jërëjëf Faye mbokk yi dañu topp kon si YouTube bi ak si euh, Facebook bi. Hmm. Facebook bi xam ngeen ni Jazboul Mouride la ñuy def. bu hmm. ñu duggee Facebook rek sunu page nga fa di Jazboul Mouride. Hmm. Euh, lu ñu bëgg am si information. di génn ñuy génn ba si Mbàkke Kajoor gi. vidéo yi ñuy def lépp nga fa ñu mën ñuy si ànd ak ñoom euh, waa biti réew xam ngeen ni ñun la ñuy wétalikoo si wàllu woowu salaamaaleykum. ku baax. waaw ñu delloo noo tudd ak fooy wootee. sëñ Fallou Fall. waaw kañ sëñ Fallou. maa ngi ziar bu baax baax seen émission bi di bu baax baax. ñu ngi delloo ziar bu baax fooy noo tudd ak fooy wootee. ah maa ñu ngi lay ziar bu baax a baax Fall. naa ah, ngi ziar bu baax a baax suñu naaw ndaw. jaajëf jëf rafetlu seen baax a baax. jaajëf. yaa mm. euh, xam xam nga ni sëñ Mamour fu nekk la appel di jóge mm-hmm. ak ay euh, message muy lu si mel ni États-Unis mm-hmm. euh, Canada ah. Espagne Italie France Allemagne Suisse États-Unis moom xanaa siyaar bi dañ koy teg ci loxol sëñ Amadou Amadou Mbeng di ko ziar bu baax a baax wax yàlla Modou Ndaw Baye Fall ak sëñ Modou Ndaw rajo Dóor waar rek di ko bu baax salaamaaleykum sëñ Aline Badonde Fall ziar nañ bi noo tudd ak fooy wootee la Modou Kane Baay saya Réfan Mboor. ah, mhm, ah ñu ngi ziar ma ñu ngi bu baax baax. liggéey bi ngeen di liggéey rafet na lool. waaw ci ñu ngi leen ñaan ko rek. kan. Ya mhm. jëf ko bu baax. kon li ma doon wax nga xamante ni Amérique mhm. euh, muy Canada di États-Unis mhm. Espagne Italie France Allemagne Suisse Brésil. Mhm. Euh, Canada moom dañ ko tekk ci xam maam Cheikh mam Cheikh Moussa Sérif Assane moom Cheikh Sérif Assane. ndeysaan waaw makkatal mukarrama sax ñu ngi koy jaar bu baax sëñ Manel makkatal mukarrama. Australie. Chine Hollande. Gabon Côte d'Ivoire yoy yep ñu ngi ñuy topp bu baax salaamaaleykum. alaykum maaleykum salaam wa rahmatullah ah ku baax ñu ngi ziar nga bal ñu yokk kàddu gi. yal na yàlla boole yoolu ziar bi yëpp. amiin jaajëf. man waa kër gi yëpp. sant tur bi ak fooy wootee. Ngunda Seck Darou mu naan taalib Sëriñ Mbacke Fall Ngunda. ah hmm. taalib Sëriñ Mbacke Ngunda. ndeysaan. waaw ah, ah, ah, sëñ ñu ngi lay ziar bu baax. di leen ñaan yàlla. jaajëf yàlla guddal fa ñu wéree cër yokk wéeg ak man ci barke Cheikh Ibrahima Fall. ma xool seet na di ko yéen. lool mm-hmm. bu ma xool seet na lool ci yéen. ndeysaan. Mm-hmm. yàlla yàlla guddal fan yu wér ci barke amiin amiin jërëjëf jëf ñu tool rek ñi leen di teewlu de ñu tool rek ñeen la ñu teewlu jërëjëf jëf mu lim tu yi eh, eh, di ko baax baax bi eh, sek, mm-hmm. dañoo lim dëkk yi waaye dëkk rek mm-hmm. muy si biir réew mi di si biti réew mm-hmm. ba si Gàmbi gii nga xamante ni ñu gën a jege sëñ dalalal ki bi mbokk mi ñu xaar ko hmm. suñ Issa Mbaye ak sëñ hmm. Baba Ndigal ñoom ñëpp fàtte wuñu leen Amérique Italie ak ak Allemagne waaw soxna Xadi hmm. Cissé Allemagne man na ko soxna Daba Cissé wala ca Canada moom itam euh, États-Unis jëlal ko si ligne bi bisimilah allo waaw mbokk mi bisimilah waaw kooku waaw man la Abdallah Abdoulaye fooy wootee waaw ah, waaw waaw daal mbokk yëpp am yéene mm-hmm. Mm-hmm, ndeysaan te xam di déglu sax ñoo mm-hmm. ñi bëgg dugg it te wu ñu ñoo ëpp foofu waaye nag ñu leen koy jégal ndax lii nak dañ ko defoon tey ngir saafonteeg mbokk ndax ne dañuy bëgg di feeñal seen yéene waa Maroc ñu ngi xel bu baax wër wër jëlal ci leen bi bismillah waaleykum salaam maam góor sëy la yëkkatil kàddu gu tuuti maam góor sëy maam maam sëy sëy am góor sëy waaw jërëjëf sëy sëñ maam góor fooy wootee Touba ah, Dakar Dakar ah ana mbokki ah ana bismillah yëkkati kàddu gi yéen siyaare bu baax yàlla na nangu siyaar baax sakkoor sëñ Abdou Sakkoor Fall. alhamdulilah. sant jërëjëf. tubarkal. kontaan nañ loolu wax dëgg. daa mel ni kàddu gi moo suufee. Mhm. jaajëf daa mel ni kon dem na jëndal na daa mel ni dem na sëñ Mamour auditeurs yi Lamp yëpp ñu ngi leen di ziar mhm. ñoom it ñu ngi bàyyi xel jotaay bi mhm. euh, kuréel taxamaan yi itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax beneen seen nuyu ak seen ziar waa daayira Jazbul Murid fàtte wuñu leen waaw sëñ Modou Fall sëriñ Modou Fall sëriñ Xaadim Fall sëriñ Taala Fall sëriñ Bachirou ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax ñuy bàyyi xel jotaay bi saa su ne itam sëñ mhm. euh, mboolem njaboot gi yëpp rek fàttewuñ kenn mhm. mboolem ki njëkk a tàbbi ci daayira ba ci ka ci mujj a tàbbi di ziar bu baax tey ñaan nag daara ji àgg ci jàmm ak salaam mhm. xam nga ne jamono yëpp ñu ngi ci liggéey bi euh, bisimilah waaw salaamaaleykum tuuti kooku ah, fu muy wootee maa ngi wootee Touba Basirou ah, Ndiaye fooy wootee mhm. maa ah, ana mbokki Touba waaw jadi, ñu ngi jadi, jadi, nuyu jadi, jaajëf Ndiaye. jaajëf. jadi, yëkkati jadi, gi. waaw jadi, jadi, ziar baax jadi, baax. yàlla jadi yàlla jadi, jadi, ziar baax Ndiaye. waaw jadi, jadi, ziar baax. ndeysaan jërëjëf. alhamdulilah. jadi, Ndiaye jadi, jadi, Ndiaye moom moom suñu sàllu moom suñu jadi suñu jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, waaw. ndeysaan. jadi, ziar baax jërëjëf. moom it xam naa mi ngi waajal poroxaan moog suñu saambar ak mboolem jamono suñu mën gépp wàccaay waaw waaw ci kër sëñ Modou Aminta googu ñu doon liggéey ci Poroxaan dëgg la ñu ngi koy waajal bu baax a baax waaw moom de moom de koy ñaanal bu baax a baax rek suñu borom yàggal ko si loolu amin ñu bok amin amin waay amin waaw te ak ak jëruñoon jooyu de sëñ Moustapha Fall sëñ Moustapha Fall Mbar waaw a baax rek amin waay amin ñu bokk waaw yéen nag ñu leen si bu baax wax waaw ñu ñaan bu baax a baax. amiin ñu bokk yëpp amiin ñu bokk. ak suñu diwaan si Arafal. amiin ñu bokk yëpp amiin. maa mhm. ngi woon ma ci président di di di ñaan laale sama turandoo. Mhm. di di sëñ Bachirou Fall monsieur Mawla Fandar génn àdduna fan yii. ah sëñ ngi koy jaale sëñ Mor Ablaye di ko jaale mboolem njaboot sëñ Ablaye Fall Ndar gi yëpp. waaw sëñ Talla sëñ Fallou Baye ñoom ñëpp ñu ngi leen koy ah, jaale bu ah, baax a baax ah, waay waaw sëñ Bassirou Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar di ñaan sama borom yokk ay leeram taasu ci barkeem ndeysaan jërëjëf sant sant nañ sant nañ bu baax a baax waay sant nañ bu baax a baax jërëjëf mhm. comme ni ñu ko waxee waa daayira jës bu murit ñu ngi ci daara ji mhm. saa su ne itam ñu ngi cay yëngu comme mhm. ni ñu ko baaxoo defee saa su ne di ñaan mu àgg ci jàmm mhm. di ziar bu baax mbooleem ñi tàbbi ci liggéey bi yëpp nag ak mbooleem kóllëre yi ñu am te saa su ne itam ñi barkeelu ci liggéey bi di leen bu baax a baax a baax ñu jël ki si ki mujj si ligne bi mën na ñëw tënk salaamaaleykum aleykum salaam wa ah, ku baax ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax Baaxum waaw mu kayaar nu ngi koy ziar bu baax a baax baaxum Abdoulahat Ba Sëriñ Abdoulahat Ba waaw ñu ngi jégalu Ba ñu ngi siyaar sax Ba jërëjëf jaajëf ñu ngi siyaare waa Thiès yooyu ngeen di siyaar hmm. ndeysaan ah, ñu wax suñu hmm. ñu ngi leen di siyaar baax suñu Mamour moom ndeysaan jërëjëf ah ñun dañu sant bu baax di bëggee wax dëgg yàlla hmm. waxtaan am na solo lool ndeysaan ñu xam ni. c'est mhm. moom mhm. lépp mooma. Mhm. ndax bu dul woon moom. ndax moo wane li ñëpp topp. ñëpp ku bëgg lu baax rek bu di ko wër rek c'est vrai ngay roy. ndax moom moo moo wane li ñëpp di topp. Ah, di siyaare waa kër waa Loyal. di ko teg ci loxol suñ daam loo. ñu suñ moor loo mu siyaare ñu waa Loyal yëpp. ndeysaan. di siyaare suñu wëllëre te ñu ma jàpp. jërëjëf ndeysaan. di ziare suñu Abdoulaye Ndiaye. Mhm. di ziare Serigne Maysa An. ndeysaan. di ziare mbokk taalibe yi di ziare waa Kër Sibo tamit. ñu ma bokkal Cheikh Mourou Moussa Fall. jërëjëf maa ngi leen ziare. di mhm. ñaan di ngeen di wut ci liggéey seen feebar bi yàlla na ngeen di am kaw seen jox. ndeysaan jërëjëf. di ziare mboolem koo xamante ni yaa ngi nii. Euh, mhm. teewlu jotaay bi. nga xam ni jotaay bi am na solo. ndeysaan jërëjëf. li ñu fiy déggee am na solo. yàlla nañ ko jariñoo yàlla nañ ko yàlla nañ borom dafa dégg ak topp yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi koy def it yàlla nañ Sëriñ Tuubaa defal li ngeen di wane am na solo li ngeen di wax am na solo sant nañ bu baax jërëjëf yëmu leen daal suñu wëlëre ngeen te ñu leen di teewlu lañ tamit mhm. ñu leen di bàyyi xel lool mhm. dëgg yàlla suñu xol daa seet mhm. mosuñu dugg ci télé mosuñu woote ci rajo wax dëgg yàlla lii am na solo. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. bu baax. waaw tubarkalla jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. Mhm. jërëjëf. sëñ Mamour mu mel ni kon sëñ Abdoul Ahad Ba moomu moom mooy. Mhm. Eh, kii eh, mottali yéene ñeneen ñi bëggoon dugg yëpp. si wu mun nañ wax ni duggaaleel na leen. Mhm. li nag incha allah dinañ ko amalaat beneen jotaay. nga xam nag ñoom it si lañ bokk. ngir di feneel seen yéene si liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye ñi nekk biti réew. ou euh, nañ leen benn plateforme SMS diaspora. ngir nag léegi message. nga dinañ jot bu baax. ñu ko France ak Espagne. bu ni euh, euh, TXT. TXT. def espace lampe TXT espace message. daal di envoyé si 505 maanaam 505. bu dee waa France la yaakaar naa ni euh, kii baa ngi noonu di jàll écritel euh, bi mu ngi noonu ñoom it euh, dañuy bind lampe def espace bind seen message ngir wane ni ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax liggéey bi daal di koy envoyé kon ci numéro bi nga xamante ne moom lañ leen beral ñoom it waa France di numéro diaspora boobu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaye di dollee ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké mu yàgg fi loolu tànd ak wér waaye di ziar bu baax a baax waa kuréelu daayul daayu xasida mm-hmm. Serigne Ibrahima Gueye Serigne Jili Samba Abdoul Khadr mm-hmm. ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni tàmbali nañ ko di euh, xasaayit bi nga xamante ni moom lañ jël def ko xas euh, xasida de l'année mm-hmm. euh, muy taysirul asir mm-hmm. lu ñu si jublu mm-hmm. nag mooy ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar mu yàgg fi loolu tànn ak wér ci digalam nag ah, ndax Serigne Ibrahima Gueye Serigne Djili Abdou Khadre Samb dem nañ ba si Serigne bi waxtaan seeg moom mu jox leen si ndigal lu ko ni leen sax lim yi ngeen si nar a def boo leen ko noppee na ngeen ko tëjee lii di xisnul abraar xam nga ni loolu lu lu yéeme la démb woon plateau de lancement bi xam naa ne si altine yi ñu dëgmal ci la ñuy tàmbali nag première partie bi ba bis bi ñu ko war a tëj yóbbu ko nag si barab bu yaatu boo xamante ni dinañ si ànd ak mbooleem partenaire ànd seek mbooleem mbokki euh, jullit yeeg mbokki taalibe yi mm-hmm. daal di nag bokk tëj xasida boobu nga xamante ne mooy xasida 2017 1438 si gàddaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jagleel ko Cheikh Sidi Mokhtar te yéene gépp kon bis ni ki euh, démb ak lu ko jiitu mm-hmm. ba keroog ñuy noppi xasida bi lu waay mën si jàng tey siro asir na ko jàng waaye te bu ñu demee ba si tëjte bu ñu tëjee ko xesnul abrar lépp nag mooy yitte yi jagleel ko Cheikh Sidi Moukhtar mu yàgg fi loolu tànd ak wér initiative bi nga xam groupe Lamfal communication jël na ko jaare ko nag si Serigne Ibrahima Gueye ak Serigne Jil Abdou Khadir Samb ñu ngi ñaan suñu borom dooleel leen kattanal leen nu àggale ko te te te mottali ko si jàmm kenn bañu wuute ñun ñëpp ñu fekkee tey nag njariñu ko xasida gi liñ si jublu suñu borom nu ko muy cheikh sidi mokhtar yaagi fi lol tande ko ba agale nalim nal ba nal yenen nal te ñun ñëpp nak ñu teewee ko ci jëriñoo ko seigne Mamour di la ziarat bu baakha baakha baakha baax di fatali li di euh, jezbul mourid euh, di page Facebook bi jezbul mourid ku si dugg rek euh, lo soxla ci information yaaka na ni mu ngi ci ñi bindit ñu ngi leen di sante bu baakha a baax te léegi-léegi ñu ngi bëgg di tontu lepp luñ ci mën mo xam ñii rafetlu mo xam ñi laaj sa su ne leen di tontu ñu gëna rafeté seigne Mamour di la ñaan suñu borom katanal la yokku xam-xam bi bu baax a baax doollee ziarat nag Serigne Abdoul Karim Mbacke borom makarim axlaaq mu yàgg fi loolu tànd ak mu yàgg fi loolu tànd ak wér mm-hmm. buñ tuddee Serigne Karim Mbacke yóbbaale na mbooleem njabootu Serigne Touba gi buñ tuddee Serigne Cheikh Ngunda yóbbaale na mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yi mm-hmm. eh, di ziar baax Serigne Thierno Diaw keroog Mbacke Kajoor mbir moomu lu lu marqué la sëñ mm-hmm. Mamour di la ziarat bu baax jërëjëf sëñ Alim Badara di ñaanal baax rek ndax ñoom seen pas-pas moo rëy moo tax ñu am yéene ci li ñuy def waaye yéene ji lépp rek delloowaat ko Cheikh Sidi Mokhtar comme ni nga ko waxee ci mhm. xasida bi ngir ñaan san borom doolu ko fa yàggal bu a baax ba naal yëpp mu sottee ci loxoom incha allahu waaye di ñaanal bu baax sëñ Ibrahima itam ak sëñ mhm. Jili ñoom ñi nga xam ni it mhm. ñoo ñooy taxaw jotaay boobu san borom kàttanal leen ñoom it te wéral leen ñoom damay wax saa su ne ne seen pas-pas di leen ziar bu baax te di leen ñaanal wax dëgg saa su ma di ko wax Ibrahima ndax moom Eh, dama damay wax ne xam naa ne lam xam naa lam fal jumtukaay la mhm. waaye ñoom it ay jumtukaay lañ <laughs> waaw ñoom it ay la waaye ñoom it ay la waaw ndax saa su ne day feeñ ci liggéey bi feeñ ci pas-pas bi eh, mënuñu fay ñàkk daal mhm. bu baax ñu yàgg ci gannaaw jëwrin sëñ Alioune Thioune mhm. sama a baax moom tam di wéyjuru sëñ Ibrahima moom saa su ne day bàyyi xel bu murit moom ci depuis bañ ko tàmbalee ba tey du ko wóote benn yoon

ci Sénégal rek wutal na ko keesu maam Cheikh Ibrahima Fall. di si ziar sëñ Aliou Ndaw bu wër sëñ Aliou ma nga ma nga poroxaan ak mboolem njaboot bi njabootu Baye Cheikh Ndaw gépp nga poroxaan nag sëñ baax a baax waaye ngaay nag duñ ko fàtte defe naa ngaay ah, waaw ah, moom defe naa duñ leen fàtte waaw waaye waa Pire ndeysaan ñu ñuy topp saa su ne Abdou Gora Mbaye ak sëñ Modou Mbaye ah. ci Pire ñoom waa kër euh, sëñ Abdou waa maanaam waa kër sëñ sëñ Moussa Mbaye lañ mhm. ñu leen di ziar bu baax Pire waaye suñu wajur a Talla Dieng mhm. Baye a Dieng bokk ci ñi njëkk a sos guddi gi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa gërëma maam Cheikh Ibrahima Fall muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm ñu leen di ziar bu baax a baax mbooleem bokki taalibe yi nekk Pire yëpp mhm. waaye di ko jël ziar mi ne teg ko ci loxol suñu baay Baye Talla Dieng mu tegal ñu ko ci mboolem ñi yeewoo Pire ñëpp di jaajëfal ñëpp na sëñ ba Badara di la ziar baax tey ñaan sans borom yàggal la fi te may la ak wér di ñaan poroxaan ñu dem ci jàmm dikk ci jàmm di sàkku nag mboolem ku yor daamar mhm. nga def ndànk ndànk rek waaw nga def ndànk dem si jàmm ñëw si jàmm page Facebook baa ngi noonu sëñ mhm. Assane Fall di ko ziar bu baax a baax mu ko kon affiché kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax rek ngir ñi nga xëy ni bëgg nañu toppaat liggéey bi waaye bëgg si am ay leeral incha allah buñ si duggee dinañ si am euh, leeral yi ñu soxla yëpp tudd nga ngaay mexee sama xel dem si euh, kër maam Ibrahima Ndim ak maam si Ndim di maam euh, sëñ Baye Modou Thiam Baye di ziar mboolem waa ndax nag mu ngoog samay samay mbokk dëgg nga fa di ahlu ak caameen di leen ziar bu baax a baax di ay di ay waa kër sëñ Tuubaa Xaadim Rasul waaye di beral nuyoo ak ziar mboolem njabootuk El Hadj Moustapha Sey waaye it mboolem njabootuk El Hadji Mbaye Seye ñi nga xëy ni sama sama sama samay maam di ñaan suñu borom yàggal fi Baye Moustapha Seye waaye it euh, yokki ngërëm si euh, Alaaji Mbay Seye bu wër a wër te yàggal fi njabootam bi te sàmm leen bu baax a baax a baax waaw sëñ Babacar <laughs> Babacar Seye ca Touba sëñ Abdoulaye Seye waaw moom sama nijaay sama sama xarit sama lépp di ko ziar bu baax a baax mhm. ak mboolem njaboot gi rek suñu tuddee euh, suñu nijaay suñu goro Serigne Ndiaga Seye mhm. mi nga xam moo nekk si bopp njaboot gi mu mhm. yóbbaale ñi si des ñëpp wax dëgg yàlla di ziar bu baax a baax soxna su mag seeg waajur wu góor wi di leen ziar bu baax di ñaan sunu borom yàggal leen fi loolu te naan dëgg wér barki maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem njaboot gi rek waaw di santaat gërëm sëñ Mamour di ziar bu baax a baax mbokk yi ñu doon jàppale si cadrage bi di ah, sëriñ Abdoulah Baye Fall di ñaan sunu borom kattanal ko te fëgg boppam te moom moom moom moom waaw waaw moom moom dañoo bokk liggéey bu baax a baax di ko ziar bu baax waaye di ziar sëñ Madiagne si bu wër a wër sëñ Masek Diagne mi nga xamante ne moom it ñoo bokk liggéey bi saa su ne wax dëgg yàlla du wuute du wute benn yoon di ko ziar bu baax a baax ziar Serigne Lamine Ndiaye si wàllu vidéo bi Serigne Assane Fall si wàllu réalisation bi di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel seen émission Jazboul Mouride di leen jox daje incha allah beneen talaata si beneen waxtaan gannaaw bi ñu jógee Poroxaan incha allah di ñaan dem si jàmm dik si jàmm waaxiru daawaane alhamdulilahi rabbil alamin amin